maa leen di nuyu yéen ñëpp presse bi di nuyu ñi fi di wax aussi euh, sama euh, sama satisfaction d'avoir euh, au Sénégal une jeunesse comme ça une jeunesse très consciente très engagée très impliquée boo xamante si nii aussi on est en train de révolutionner la manière de faire de la politique on est en train de montrer au monde entier c'est qui le Sénégal xar kanam le niveau ñu bëgg Sénégal adduna bi di ñu ko quoi et avant xamoon nañ li fi xewoon comment faire euh, bu euh, élection jotee euh, fan la nit ñi doon jëlee seen ay fonds xamoon nañ ko xaalisu contribuable bi la ñu daan jël demaat si nit ñi di leen si aujourd'hui quand on a un leader buy oote ay cotisation nga xam ne seeni jeunes yi étudiants yi maires yi baykat yi ku nekk yaay yëkkati daat ne ñun projet bii ñu gëm ñun ñoo koy suñu je pense que c'est une grande leçon qu'on est en train de donner au monde et que et que man sama satisfaction moi, de voir cette façon de s'engager de la jeunesse cette façon de s'impliquer sur les affaires de la cité Nous, avons ñu jeunesse bu dañuy en tout cas appartenir à cette énergie là et nous saluer dañuy saluer ñoom euh, engagement bi ñu Sénégal avec toutes les difficultés que ça comporte dans le seul but de défendre la nation de tes idées de défendre en tout cas ses convictions

ils ont créé la, la, la, situation bio de booy ci ils ont créé la situation bi waral euh, récemment la sortie du premier ministre Ils ont falsifié nos chiffres des milliards yu ñu dem lebi te kenn xamul lañ ko xam nga bu nous sommes ñu leen ñu six mois nan ndaw ñi jaar des gens comprendre donc il ne faut pas s'attarder c'est des gens qui ont décidé. Le Sénégal a tous les honneurs jox Sénégal. Euh, euh, ils place vraiment euh, et ils se sont retournés dès le parc du côté jam Sénégal Ils ont ay contrats qui au détriment du peuple bi durant 12 ans ou plus même c'est ce même système qui a empoignardé son peuple qui a affamé son peuple Qui a poussé ces jeunes à hein, ñu la mer les pirogues d'idées donc ces gens-là le peuple bi demee ba conscience wan leen ginnaaw teg fi benn régime régime boobu ñëw fekk fi benn catastrophe mu nekk di ko a stabiliser ñoom ñu wëlbatiku li nga xam que ni situation bi ont ñoo ko teg ñu di euh, un régime qui doog a 6 mois je pense que les Sénégalais ne sont pas dupes Ils nañ bu baax qui a fait quoi et que je pense que le plus important maintenant c'est que si on le 17 ni que on a un peuple mature on a un peuple vraiment mature pour comprendre les enjeux

gis nga gars yi parfois dañuy jaxase ay cas yu bokkul bi gars yi di japp loolu on était dans une dictature bo xamni dañ lay japp au nom de de fi nga gëm ak li nga bok wala bok tu représentes un danger wala tu as du monde wala da nga influent ñu ne ki fokk ñu créer ko japp ko les gens ne sont pas dupes comme li mo la wax l'histoire est trop récente pour être pervertie ñu bayiko ko légui nak bo boo di joxé ay fausses nouvelles di saboter si ben dëkk pays qui xamanteni ils ont payé le prix fort pour jot sen liberté yow nga au nom de tes besoins personnels nga ni saboter sur ça je vais donner des fausses chiffres je vais insulter les plateaux, plateau créer samay média pour que les lu ñu def ci lu bax ma xol naka saboter la owe bu mélanger les choses bu nit ñi comparer les choses maintenant pour ce qui se passe aujourd'hui on a un président qui se déplace c'est la république qui se déplace tu vois c'est quelque chose qu'il faut respecter bu fa un opposant demain pour contrecarrer ou pour créer un boucan ah, am na un protocole qui xam ne du Mais pour bépp opposant boo xamante si ni ba nga dem Bakel c'est ton droit mais tu dois laisser quand même la priorité au président de la République Moudem dem Vous faites bu mais tu prends ton jour nga dem mais si tu veux créer le buzz si tu veux créer une euh, énergie autour de toi les conséquences moy. le protocole n'y ñu fayda comprendre nga dañu lay teg ci place président bi def li mu a def après ñu c'est juste ça merci waaw ñu ngi ziar ñëpp nag ñu ngi ziar ñëpp ñu ngi ziar ñëpp. alors tey sa teewaay si wax. waaw li ma siy wax rek bariwul mooy que ni c'est un don de soi pour la pati ñun lépp lu ñuy yëkkati suba ba ngoon rek pour askan wi la kon bu ñu gisee ko xam dafa jug pour jàppale askan woowu. du ñu mën loolu jàppale ko loolu mooy suñu teewaay fii. tey bi waaw mais discours bi moom defe naa ni li mu li xam nañu moom Ousmane moom ba mu dalee wax ba léegi ku yeewoogul dootoo yeewu Ousmane dafa ubbi bitu nit leen fu leer yoon wi rek la won nit ñi fu ñuy fu ñuy jaar fu ñuy jaar. ba àgg fi nga xam ne mooy defar réew mi te ñu gis. alors tey lan ngay wax ci kaw Bougane Gueye Dany jot ngaa liggéey ak ñoom récemment jot ne dañ ko jàpp foofu nga xam ne. ci non je je préfère ne pas je préfère ne pas en kenn si askan man pas ndax coalition bi nekkul am na solo yooyu nga xam.